waaw booy xanaa xam ne ni a la mais sox lu waral nga taxaw ci biti sa a rakk di ah, gis ngeen làmb ñi de dañ ko téye ci biti te rakkam mooy bëre tey loolu lan ngeen si xalaat ah lu xew ah daam looy xaar mais sox moral bi bon nice ah ah d'accord làmb la mais mun nga ñu wax ak deux minutes Non, mag je 2 minuten rechts op. Mag je 2 minuten rechts soq waa Ibakan TV nuyu nañ la. waaw ñu ngi leen di fay. noo àndee Saraka tey. waaw. waaw. mais yow gis naa ne da ngaa relax quoi sans pression nu mu demee noonu. lamb ji daa jar loolu jar hmm. bi mu jeex ñu continuer seen carrière ñoom ñaar ñëpp jàng lañ toll. dëgg la mais dama dama fee ñun dañ laa téye quoi Paa Bale moo la téye noonu. nu mu demee non non kenn téewu ma daa am may xaar rek ah, da ngay dugg léegi. noo gisee nawetu ren bi. non ah sant yàlla rek comme tawul ba heure bii moom. ah. am nañu yaakaar ni làmb ji dina am ci jàmm jeex ci jàmm. di nga béy Casamance di nga dem béy. non léegi rek. waaw ah. toos baatu toos toos laay àndal waaw. ah d' am na fu moo nekk noonu. làmb loog làmb loo ngi ne la. kee lu mu si làmb rek bindal téere. ke ki kii mooy préparateur mystique la soq mu ngi nii de eh sama gars yaa ngoog waaw. waaw. injustice bi am si lamb injustice bi am si lamb moom la ñuy xeex waa parcelle dañoo yaakaar ni may ma tuuti waa parcelle dañoo yaakaar ñoom ñoo moom lamb ji mais lamb ji jëlaat nañ ko ñun suñuy loxo lañ ko teg lamb ji léegi ngeen xam ne Pikine da see am wàll war ñëw ñu koy tey si lamb arène nationale li muy rëy rëy moom moo ko jëf bi am fees mais lamb lu tax ñu tee ko fii lu tax ñu tee ko fii kenn xamul kenn xamu ko waaw kenn xamu ko parce que kenn xamu ko waa parcelle moom léegi dañoo yaakaar ni ñoom ñoo moom móoli mais ngeen xam ne ñu ñoo moom plein yi ñu ñoo plein waaw mais ki may gis nii du Sarr Touba wala du moom du moom a ah, kii du Sarr Touba Sarr Touba la Tombé ziar naa la mais Tombé dama laa jaaloon Sarr Touba gars yi dañu lay dóor xeer de. Sarr Touba laa ko gars yi kii seen Sarr Touba laa ko jaawale woon mais ziar naa